xibaar yu wér te wóor Touba la ñu jëm fekk fa góoró ndaklo foofee commerçant yenn ci marché Ocass bu Touba yeew ak na xaru xol ay samba boy yu gàddu seeni ngànnaay ñoo fa ni salaax jot fa dajji yenn ci ay magasin jot a fëkk lenn la fa nekkoon yóbbu ay koppar jot na ca bokk correspondance jàqare la yenn ci commerçant yi nekk ci marché Ocass bu Touba dundu ginnaaw guddik biik ñetti cantine la ay defkatu ñaawtef dugg yóbbu fay koppar bu ñu sukkandikoo ci kenn ci ñu bokk ci jëye jooji lay mortaala loo lay wuyoo fekk naa ñu dajj place bi dugg ci biir maa ñett place yu ma dendal daal ci jour bi lañ leen ci guddi gi lañ am problème boobu waaw même keneen ki nag dégg naa am na lu ñu ko yóbbul maa ngi dégg sax papaam am ëpp na cinq commerçant bi yokk ci ne ñàkkum kaaraange gi ñu ñuy nemmeeku jamono jile ëpp na donte ñi di waay takk der yi ñu ngi def seen kémtulaay kàttan ngir askan wi mën a nekk ci jàmm fan yi sax gis nañ ay raafal yu bëree bëri mm-hmm. waaye raafal yi bu fekkoon nam war demee dem na ko juróom-ñaari place ci guddi ci benn secteur mm-hmm. ñu ko te benn kenn yëgu ko mm-hmm. loolu wax dëgg yàlla bu fekkoon ne niñ ko waxee defe nañ ko noonu warta demee nii waaw moom daal ñu gën noo jàppale sécurité bi daal moom nag noo xam comme ko ñu yor wàllu sécurité ba ñu gën ñu jàppale bu baax a baax daal police déglu leen na ginnaaw cambriolage bi am ci marché Ocass bu Touba donte ñoom commerçant yi ñu ngi xaarandi fan la wànneent di mujjee ki gëtëm. bu ma dikkee tam dugg ci place bi tam fekk naa fi tam délégué marché bi ak waa kii waa polisu jànnatu ak Modou Diaw ñëw ak ñëpp daal bu dikkee tam dugg naa ci biir xool am na lu ñu fi jël mais nag li ñu fi jël heureusement taxul moo bare noonu. ginnaaw Louga ak yeneen i gox-goxaat yu nekk ci biir réew mi defkatu ñaawte fii di lëmbee tax ñenn ci askan wi ne la watuñu ba yandoor